ndax euh, développement li wolof di wax balaa nga ne naam da nga balaa ngaa développé dara wala dara def dara day fekk moyen ya nga koy defee nekk te bokk na ci li ñu fi dajale tey mooy waxtaanee benn ponk boo xam ne bu ama am solo la ci collectivité territoriale mooy fiscalité ndax fiscalité mooy li nga xam ne nii day jóge ci askan bi ñëw ci collectivité bi delluwaat ci askan bi loolu nag yaakaar naa ne ñu yàgg ci àddina bi ndax ci wàllu diine sax imaam xam naa duñ ci àggee danañ ko wax am na loo xam ne ni loolu lañu ko tënk yi ak loolu lañ ko taxawal ndax képp kuy yëngu ci ab gox am na loo xam ne nii gox bi warul na lool waaye nag am na loo xam ne lii warul na ko sa wareef yooyu nga war a def nag boo ko defee ba pare ci nga war a xaar gox bi moomu delloo la ñu gën mooy li jóge ci yow war a dellu si waat ci yow loolu kon mooy ponk bi nga xam ne nii tey ñëw nañu ngeen yombalal ñu ko bëgg ñu waxtaanee ko xool. ci gox bii di Kébémer naka la ñuy def ba euh, fànn wu gën a dox ndax bu doxee rek dëkk bi dox bu doxee rek euh, askan wi gën a gis seen bopp ci doxalin bi kon nag euh, yàlla def forum si bi ñëw ñu ko ci daal bi ak kàddu bi jox ñu ko ñun ñu nga xam ne xëy na ñoo fi toogal askan bi ci wàllu ngir rek ñu def échange échange nag boo ko déggee mooy jàngalekat amu fi c'est-à-dire waxtaan moo fi am ci ñu weccante xalaat ci wan yoon ak yan fànn la ñuy jaar ngir mën di waxtaan askan wi ba li leen war ci jox ñoom ñu xam ko te ñu euh, loolu laa doon wax ci monsieur le di ko ubbee jotaay bi euh, balaa ñoo def dara nag. ñu jox imaam ñu ñaan gannaaw loolu nag ñu déroulé maintenant calendrier bi jox ko madame la coordonnatrice moom tamit pour mu wax réellement objectif bu daje bi après ñu déroulé nag calendrier bi incha allah maa ngi leen di sant jërëjëf madame la coordonnatrice vous avez la parole ah imaam vous avez la parole nga ñaan après ñu def ko merci beaucoup imam ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu ñaar yi nga xamante ni si moom la ñuy saa su door suñu activité di remercier le représentant du maire en même temps secrétaire municipal euh, peut-être apporter juste quelques informations par rapport aux modalités donc de la formation euh, xam ngeen ni forum civil ñoom ni ñuy doxalee ñoom du ñu faral di joxe ay ak yooyu noonu mais il est prévu donc un remboursement transport comme njaayee ni aussi xam nga souvent dañuy bëgg ay ak voilà jour bi spécial vendredi ci rek ni donc donc pour éviter tout cela on avait programmé de faire un repas Nous avons loolu au ñuy nekk di repas ko jël ñu jox comme ça bien avant l'heure de la prière rek ñu libérer comme bis bi spécial donc sans plus tarder euh, comme une de de on va donner la parole donc à madame la coordinatrice donc pour son mot de bienvenue et tout juste après donc nous attaquer le travail merci. sistema sottostanti fiscali o budget. loolu sax moo waral premier di bi ñuy attaqué budget di territoriale doo ba dem ci fiscalité territoriale parce que dañ ko considérer dafay dox ci leeral leer ak leeral di dox di di jàppale activité locale yi ci jógee ci atelier bi te loolu la ñuy xaar bi ñu teg ko bi teg plan d'action boo xam ne dinañ mën a jàppale collectivité locale mu mu mu collecté ay fiscalité en plus mën ko investir foo xam ne ñun aussi dinañ ci am heure 3 jours ko wax 3 jours donc àllarba dañ ci ko waxee mu ne amul benn problème ñun forum civil loo leen wax ñu ñu soog a parce que le maire a dit à notre coordonnateur que ni ñun maire témoin loo leen am comme projet ñoom lañ ñu ñu ba ak donc loolu ñu ngi leen loolu dafay wane ni tamit amul xëy na loo leen di nëbb bëgg ngeen lépp leer donc loolu daal mooy soxla yi ci tënk. xam naa ne noonu la ñu def bu ñu duggee ba ci biir dina am ay débat yi comme ça secrétaire municipal moom mooy gën a maîtriser affaire fiscalité parce que ci lay ma donc fu ñu defal exposé ñu jël jëri partagé suñu paree comité bi euh, mën a teg plan d'action yoo xam ne vraiment ñu ngi décidé à la macha allah tur yàlla en tant que consultant waa waa ñu donné la

donc damay proposer euh, léegi ñu def benn euh, kii euh, def ko deux groupes c'est bon waaw benn groupe bi mën na travailler ci budget bi ci des def ci fiscalité ah su ko defee man ma coordonné suñu paree nag après ñu def genre plénière boo xam ne danañu mën a def restitution ci ci budget yi ñu c'est bon ñu tenir compte ci temps bi rek. non non non dana gaaw dana gaaw dana أردنا définition que Alors pour les niches, euh, malheureusement, bon, euh, malheureusement, on a eu à lister 15, 12 sur 15 D'abord pour 1. Euh, euh, taxe sur les véhicules du 2, 2 location sous et 3, euh, état civil. 8. Location propriété communale. 9. Taxes sur les concessionnaires. 10 donc taxe sur le droit de stationnement, 11, donc taxe euh, relevant des stations d'essence, 12, euh, taxe sur les spectacles. Donc ce sont les 12 points, les 10 niches, les 12 niches que nous avons. Sur les automobiles aussi. Sur les automobiles, voilà. Ok, donc taxe sur les automobiles. Ce qui fait 13 Je l'ai cité. Hein. C'est bon. Ok, donc pour euh, la question numéro 3, les recouvreurs, leur rôle, donc, donc ils se chargent de collecter les fonds susceptibles d'alimenter le budget. 4. Les stratégies proposées. D'abord, on a misé sur la communication. ensuite, sur la transparence. Et la transparence commence par le recensement des biens appartenant à la, commune. Ensuite, mettre sur pied euh, une commission chargée de contrôler, de voir euh, si le budget, euh, d'abord les taxes euh, sont bien recouvrés et que le budget fonctionne normalement. Et que donc pour le cinquième point, d'abord les blocages, c'est d'abord la familiarité, donc l'ignorance due au manque d'information et le désintéressement de la population, la Et la corruption. Mhm. Donc, euh, du budget. Alors, relisez la définition. Si vous êtes satisfait et si Hmm, sinon, si vous avez des éléments de complément que vous pouvez apporter à la définition pour nous permettre quand même de, stabiliser, de stabiliser une définition euh, qui colle mieux à ce que c'est qu'un budget. Donc on a prévision de recettes et de... budget. Prévision des recettes et de dépenses pour une période

le budget c'est un document prévisionnel de recettes et de dépenses loolu première base fondamentale de comprendre c'est un document de prévision de recettes et de dépenses dara newu beneen élément y a un te qui est que li ngeen moi.

marché bi am naa fi tant de place yo xamné ay jaaykatu yàpp la vingt cinq place mille place bu nek war na fay juróomi téeméer par wèr xam nga kon wèr bi ñaata nga war soko am soo après nga xam at bi ñaata nga war lolu am da ngay dem ci droit de place boucherie par exemple nga bind fa montant bi lolu moy prévision bi ngay séntu ci boucherie ci li ñu war a fay ci julli nga ñëw ci cantine yi xam nga ñaata cantine nga am cantine bu ne xam nga ñaata euh, ñaata lay fay par weer nga multiplier ko xam ñaata ngay yàq ci cantine nga pare dem ci <coughs> occupation domaine public bi mooy ODP nga recensé def xam ñaata ODP la ODP bu nekk la muy fay nga recensé boobu nga di séntu naa nangam ci ODP. xam nga ñaata station d'essence essence nga am nga ñëw euh, ne station bu nekk temps de pompe la pompe bu nekk conseil municipal bi fixé na ne nangam la war a fay suñ ko dajalee ci at mi war nañoo am nangam état civil nga ñëw extrait bu nekk 400 francs la ñuy fay ah daaw bi ñu demee ba fin d'année gis nañu ne euh, am nañ fa 2 millions ngay prévoir nañ da nga naan ren kon su population bi xaw naa yokku te day avancé 2 millions laa amoon daaw millions 500, cent xëy na millions yokku de 500 estimé daal état civil millions cinq point par point dara rek nga estimé wala nga calculé ñaara dafa am xam nga exactement la nga fay am ndax am exactement nga fay am loolu estimation la amit loo xam ne dafay ñëw di jóge ci état war a ñëw loolu parfois loo xam ñaata bi nga xam ne dana ñëw mooy li mel ni fonds de dotation ak fonds de concours ak amende sur euh, euh, xam nga ne dana ñëw waaye xamoo ñaata waaye da ngay référé wu ca daaw ak daaw jéeg ñetti at yi weesu ngay additionné li nga ci jotoon daaw jéeg daawaati jéeg ak ren li ngay jot ñett yooyu ngay addition def diviser ko par trois moyenne ba mu la jox ne nañ kon mën naa seen bi toll noonu déwén donc loolu la ñuy defee prévision budgétaire su ko defee soo paree sa pré document yow da ngay pare daal ne sama budget de pare naa prévision budgétaire mooy li ma yaakaar yëpp ci sama biir dëkk ak li war a jóge ci état ak li ñu war a fee ak fee pakaseen yi ñuy wax ak yooyu yëpp léegi nii su ma dajalee daal yaakaar yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp sept cent millions ay sept cent millions yi dara na tegee su fekkee ne nag exécution ba nga defoon daaw am na loo xam ne dese woon ko comme wecce ca la nga dépensé woon am na lu fa des bu boobaa loolu lay si waat ci recette waaw report loolu la ñuy wax report dañ koy reporté indi ko mu day bokkaat ci li nga xam ni moom moo fi nekk da mi ngi mel ne rek ne kees gi daaw des na nangam nangam jooju nag mën na nekk loo xam ne da nga ko waroon a def jotoo koo def fayuñu xaalis ba mi mu nekk ci kees gi loolu dañ koy reporté mi ngi mel ni entrepreneur bu la liggéey loolu nga war koo fay at mi jeex te jotoo koo fay xam nga xaalis ba ma nga fa ca kees gi waaye am nga bor su boobaa xaalis boobu day ñëw dugg ci budget ren mais report lay tudd xaalis bi ñu reporté waaw euh, monsieur Ndiaye en fait foofu laa bëggoon ko le temps ngay gën di développé question boobu laa bëggoon ko mm. xam nga da nga ñëw budget c'est prévisionnel mm. sur des certaines dépenses yoo xam ne dañuy ñëw fii li nga wax nga sànq li nga am rek moom ngay duggee maaj mm. léegi supposons comme démb nee na ma le budget de Touba de la commune de Touba c'est 4 milliards xam nga du 4 milliards yooyu nekk ko léegi

xaalis bu toll nii léegi nag loolu boo ko tënkee nga ne ah 700 millions la commune Kébémer bi seen pour 2022 séentu xam nga looy séentu nag léeg-léeg nga toog mu ñëw léeg-léeg nga dem jëli ko léeg-léeg nga yoru yet dem ca kala ko jox mu mu forcé ko mu jox la ko donc loolu mooy tudd recouvrement am na ñoo xam ne buñ la waree jox dara bu waxtu woo jotee dañuy ñëw ci seen sago sagoy bopp indi ko jox la loolu peut-être mu mel ni état am ñoo xam ne dañuy toog xaar nga ñëw fayiku sa fayiku fay si waa fayu si leen ñooñu mooy ñi ngay dem collecteurs yi yi kii am na ñoo xam ne dañ lay war a fay nga ñëw fayu leen ñu lay dawloo wala ñu lànk su boobaa it yoon am na lu mu prévoir ne noonu la ñuy weñaaree seen loxo ah loolu mooy service des impôts mooy ñi ngeen di gis ay patente ak yooyu su boobaa ñoom ñooy ñëw am na dañ ciy dem ba am na ñoo xam ne seen compte ci boppam lañuy ñuy dem jël fa forcé leen jël comme entreprise yi forcé leen daal di foqat yi la nga war a fay kon leer na donc noonu loolu mooy recette def boo defee sa prévision ba pare yi kon faw nga ami pexe pour fexe nan ngay jotee ci loolu pexe yooyu fulla la ak fayda ak it euh, comme li ma la wax parce que boo jotut li nga prévoir noonu la nga diggee ne da nga koy def comme li nga wax nii doo ci def dara léegi nag li nga prévoir aussi du ñëwandoor parce que ci at mi nga ko def c'est-à-dire mi ngi mel ni place yi nga wax ne juuti la

xam montant bu nekk waxtu bu muy ñëw xam yi nga war a dem jëli ak ñi nga xam ne dañ la koy indil ak ñi nga xam ne dangaa war a xeex ak ñoom pour jot ci yooyu yëpp léegi nga dem ci li ñuy wax dépense xam nga li ngay séntu 700 millions la léegi nag nga war a jublu ci nag léegi lan moo ma war man li ma war a def loolu mooy dépense li ma war a jën jëndi xaalis bi may séntu su ñëwee lan ak lan laa ci war a def. nga daal di dugg nag ci dépense yi mooy li ngay laaj dépense yi dafa am dépense yoo xam ne dañ ko tuddee obligatoire mën def mënul def wala boog boo amee lu njëkk a ñëw loola faratala la bu lii taxawee lee taxaw lii nga war a def pour priorité loolu mooy ay dépense yi ñuy wax dépense obligatoire bokk na ci salaire ku nekk xam ne ne mairie bi am na ñu fiy xëy di wàcc da leen a war a fay ci budget bi nga leen di fay budget bi su ma ko waxaatee encore mooy recette yi ci prévision yi liy dugg ci ngay génne nga ne mairie Kébémer am na fanweeri nit ak juróom boo calculer masse salariale bi globalement sept million la kon bu weer bi dee dërëm dërëm fukk fukk ñaar fukk ñaar fukk yi li nga dajale ci weer bi sept millions yi ya ca njëkk da ngay dem fay d'abord salaire yi ndax dépense obligatoire Mm-hmm. su dee ca la yem weer wu jot sept millions sept millions ngay am xamal ne ba déwén doo fi taal làmp doo fi buub mbalit ndax la nga am ca salaire ya lay ba muy tàmm ko fi nit la soxla ñetti nit ñooñu ba mu leen jëlee damaa joxe exemple rek damay joxe exemple ñett yi ñoom ba mu leen jëlee dafa leen a defal këyit embauché leen am na nit ñi doyul mu dolli ci yeneen ñett ndax léegi fu ut ñeew xam ne dañoo xereñ mën sa dàq ñëpp mënu leen fee jëlee construire léegi il faut ñu am agent voyé ndax loolu amu fi woon waaye soxla nañ ko léegi faw mu ñett yeneen ñetti emploi ngi loolu kooku dégg la yeneen ñett est-ce que ñi fi jaar ñëpp te kenn ku ci nekk am na koo xam ne moo yaa ko fi dugal est-ce que comprendre ngeen léegi nag tey dëkk bi 1937 tollu woon ñu xam nga mën ngaa toog ci biti am muy joué ci mairie bi yow xamoo te fekk bu xëy si wul woon rek danañ ko wëy te yow doo xam la mu fay jëriñ yooyu aussi ba ci poste nga xam ne def euh, ñaata nit moo war a fa yàlla dogal na mu am cinq personnes kenn gi soo demee retraite est que vous obligé remplacer boobu ci loxol Sénégal kas adna sax comme te la nga jël direct ñu nekk ci non am ten fonctionnement bon salaire tant de pour cent comme le transport comme quelque chose comme ça man am tamit document yi. boo xam ne kenn mënu ko weesu. ak doo recruter nit mun na weesu loolu ci par rapport ak bis waxuma bis li nga am li nga war a am li nga xam da nga koy am. waaw foo ko 3 ans yi li nga am lépp. ci li nga am 3 ans yi jàpp nga ni kon yow lii waru ko mooy weer si bis. yaa ngi def si budget par exemple 500 millions. mais gis ne chaque année sa compte administratif 300 millions rek ngay am. xam nga amul 200 millions parce que nguur gi ñëw comme loolu ñuy wax budget boo xam ne dafay réaliste dañ naan il faut présenter un budget réaliste. man du may yéegal budget fu sori ñu wax ci rajo bi naan KMR wala Dakar am na budget deux cent millions trois cent te fekk mënoo ko am te bu lekkee deux cent millions nga war a am kon da ngaa war a deux boo xam ne salaire bi mënu ko weesu am benn bi quoi beneen bi soo gisee ñu naan ci question bëgg a dem xam nga chauffeur bu recu chauffeur bu retraité nga am chauffeur bu doon la boo ko jël benn chauffeur jox ko ko mu dawal loolu ñu wax souvent naan bu kenn ba fekkee yow renfort fekk am na ko fi nekk chauffeur yi moom deful dara chauffeur retraité na nga dem bëgg rek dëgg chauffeur yi jarul dañu ko liggéey dawal wax comme loolu comme loolu toog seetaan wax loolu rek la ñuy remplacer quoi mais bu fekkee poste ba la yow dem nga kenn mënu ko mënu kenn ko mais également par exemple am na maire yoo xam ne dañuy jël personnel di ko affecté ci benn structure yéen a ngi dal

mairie Mbacké ndax mission bi yemul ci ne mairie nga sa fii mairie la mairie commencé mission mairie mooy lépp dëkk bi yëpp. na ko collectivité cela veut dire que na fa intervenir. xam nga bañ nañ ko ba dañ ne dafa am compétence yoo xam ne sax compétence transfert waaw même yiñ transféré boo fa gisee mu sooxe. ci sa mission bu fekkee comprendre sa mission. mooy yow am na benn taxawaay boo xam ne da nga ko faa war a taxaw.

je pense que fonctionnement d'ailleurs ailleurs a moo le mairie aussi il faut garder école parce que école bi mën na ko ak directeur ak fonctionnement yi ñu mais gis nañ fonctionnement école bi duñ seen fonctionnement bi mënu la fait garder ñoom bi posé problème à la mairie qui la mairie réalisé ni mais effectivement ñu mën nañ ko caser le budget c'est pour un euh, li muy wax rek loolu mooy indi xam nga xam nga xam nga xam nga problème bi mooy da ngay comprendre yow lii sa mission yow bu ñu bu dee élu local dañ ne la góorgóorlu ba dëkk bi na doxoon c'est-à-dire lépp loo xam ne organe la bu nekk di di

c' est un problème tey problème xanaa eh, dëkk bi parce que seen njaboot ñoo fay jàngee seen i doom a fay jàngee am na loo xam ne boo seetaanee ba problème boobu am ca yow fii sa responsabilité te yow xaalis bi ngay collecte moomoo ko ci dëkk bi lay jógee ci wa ci dëkk bi la war a delluwaat donc appréciation boobu ngay def mooy tax nga ne ah comme loolu c' est un problème. Et un problème de sécurité fait partie des problèmes essentiels. comme met des disposition et vous vous que vous pour lui non non non non, non, non, non, non, da nga koo dugal muy liggéey day dugg dépense obligatoire ndax buy liggéey rek la ko cay jox def salaire lay tudd su boobaa loola day tudd dépense obligatoire cest bu fay ko jotee da koy fay waaw ndox mu ñàkk ci localité nga ñëw ñu ne école yi dañ leen problème de vie su fekkee ne école bi amul organisation boo xam ne ni mën nay fay fukk seen facture régulièrement te le problème est là léegi collectivité bi lan la war a def mooy ñu jóge ci askan bi mu fexe ban taxawaay nga cay am pour régler problème boobu moo tax nag léeg-léeg defu fi dara c'est pas pour faire l'avocat des maires wala des mais c'est c'est juste partage defu fi dara amul li mu def da nga koo xamul wala da nga koo gisul. ndax dafa am yoo def-def yoo xam ne day feeñ da ngay romb ne kii moom mairie bee tabax lii wala mairie bi moo def lii wala mairie bi moo fi kii bi ñëpp teg ci ba waaye gardien école mooy fay ku ko gis lu dul koo ko wax waaye boo dawalee ren ba déwén déggoo benn accident ci école dugg ci école bi gis école bi set déggoo benn école ne sàcce nañ fa dara mais c'est je donne un exemple damay joxe ben exemple. damay joxe ben exemple. Euh, damay joxe ben exemple. Lo xamné farata la mais visible visible Donc lolu da fay tudd sax investissement ndax c'est dans le domaine de la sécurité mi ngi melni éclairage public mi ngi mel ni ordure suba bu jot nga romb foo xam ne nii euh, euh, ñaar fukki. ñaar fukki kër ku nekk génn nga 10 kilo mbalit suba nga rombaat fa fekkoo fa benn mbalit dañ ko faa jëlee suñ ko fa bàyyi woon une semaine boo fa rombee da ngay jàpp sa bakkan. Ndiaye comme ni ko sama confrère waxee kii Ndiaye. Uh-huh. ma càmm. c'est-à-dire que ñun ñii ñun ñi nga xamante ne ñooy acteur des médias. suñu marché pour nga bëri information. ñu xëy ba moom ñu tëdd leen Le problème mooy que. yéen waa forum civil da ngeen liggéey ci loolu li ñuy wax la transparence loolu ñu xam ne mbir mi di doxee nit ñi di xam mbir mi leer mais ñun ñi nga xam ne sax ñun ñu ñu ñu ñu war a nekk les premières personnes à à être informé sax amuñu xibaar waxuma population donc gis nga ñuy doxee ñu xam ne comme ñu koy leeral ñu xam ko tey donc problème bi yëpp mooy que yéen bu ñu communiqué pas moo xam jàppale la wala ñun ngeen am ci bon appel ñu ñu wéy la koy wax wala yéen ngeen am loo xam ne benn magasin mensuel la wala au fait ngeen acteur bi ngeen permettre ce qu'on appelle au débat public non xam nga. mais ñu ñu waaw ñun ñëpp dañoo yaakaar da ngeen ko xaar bi mu 700 millions yi ngeen téye ko seen loxo bu ñu def banque loi financière def ci gën a. les banques la ko c'est-à-dire que ñun soo xoolee ne consomme pas. waaw.

ñëpp yéen am nañu conseil donc suñu nee am nañu. waaw parce que man dernièrement mu ñëw ma ñëw man dernier bi ba mu jëlee ñëw wax dëgg yàlla passée le conseil municipal. yëgu ma a fait une publication ma xam ne c'est mon rôle

li nga wax noonu daf ci am solo. yow kii euh, parce que dafa am point yoo xam ne bu xasee leer li ci des dootul lënd. nee nga du ngeen mais xam nga problème bi loolu borom kër mënuñ taxaw ci benn moté ku ne la téeméer laay joxe dépense sama jabar semaine bi ne léegi bi de mais c'est une institution am na loo xam ne. fa nga ko war a waxee nga koy waxee ñeen ko war a waxal nga koy waxal ñooñu ñooñu war a ñooñu nag dañoo am mission comme ni Mbaye Diagne wax pour waxal ñeneen yow mi nekk dans les médias ñi ngi doog am occasion wax ci tey bi ngeen ñëwee jafe nañ waxante dëgg rek est bi ngeen ñëwee oo ñu kii yow oo nga ma fi rajo bàyyi ne ma damaa bëgg invité pour ñu discuter ci gestion communale dama laa jox ngànt ndax waxtu wi moo wooy su ma demee di wax bu dee li may wax ci àqulaayi taalaa la sax dana am ku woote saaga ma ndax day foog ne li may wax dafa am ku may défendre wala ku may attaqué moo tax ma jox la ngànt waaye tey ñii dañoo ñëw fekk ma ci miir yi laaj ma lii ak lii nu muy doxee man leen indi leen ku leen ko wax ñu ne man yow li nga ci xam yaakaar nañ ne xam mën nga su boobaa damay am audace ak audience ñëw taxaw wax ci li muy doxe est-ce que comprendre nga différence bi donc comme opportunité yii li tax ñuy féliciter li ngeen def nii mooy nit ki aussi da nga koy jox occasion wu mu wax li muy wax waaye boo jógee rek di wax say waxi bopp dana am ñoo xam parce que yéen am na fu ngeen mën a toog wax dara yéen dañuy gën a gëm que euh, institution man am na loo xam ne moom waxoon bi dañuy toog dañ lay déglu ba nga pare ñu waxee ko dama leen neexee saaga la ci ne dangay waxoo dëgg est-ce que comprendre waaye yéen xam nga jàng ngeen am ngeen expérience am ngeen fu ngeen jaar li may wax nii dama koy wax dana am fu ma ko teg dañ koy jël day jàll feneen da xam li may wax tegu na ci yoon wala tegu na ci xëy na nag dana am leeral yoo xam ne du nga doonu leen ko ci xam mais man su ma ko waxee da ngeen xam ni lii yéen noonu maanaam wala mën na nekk wala mënul nekk su ngeen fi jogee nag da ngeen toog ëllëg ci béréb dégg am ku xamul am nu mu waxee ngeen nekko ko loolu loolu demeewul loolu. mais municipalité bi waaw parce que lii

boo gisee bi ngeen ñëwee wax rek ma ne leen suba la neexee suba wala gannaaw suba ndax dafa am lu ngeen mën dañu mënuñu ko municipalité bi dafa am benn cachet boo xam ne c'est politique lu fi jógee boo waxee rek day am fuñ la dëkkal yéen bu dee casquette bi ngeen sol casquette boobu la am na loo xam ne échappé ngeen ci duñ leen xool ci bët boobu su ngeen ñëwee wax. kaleen ka bëggul woon déglu municipalité bi mën na leen a déglu yéen yéen bu ngeen génnoon tey fii euh, sànni xeer commune bi am lu ngeen am ora la ngeen wax nit ñi dañ koy jël en compte ndax waa i nangam. kon gisoo ni peut-être que askan bi ñoom danoo tàmm ñu leen di nax ba bu municipalité de waxateeg ñoom duñ leen dégg ko ñu gëm ci euh, forum civil ñu leen gën a. moo gën a kiis ci seen nopp nga yow ngay wax ah. Ah. du loolu du loolu xam nga xam nga askan wi ci boppam ku nekk ka ngay xool yaa am bët boo koy xoolee kenn mënu ci daal ku liñ jiitu ñu ne la sa doxin mu ñaaw yi wala sa tànk yi hmm. loolu moom sa kër sax xam na ma sa sax da nga dul dégg liñ lay wax yow sa gannaaw waaye boo ko doon dégg boo amee jabar rek mu jeex Bawa amee jabar rek loolu duduk jeex dootoo taataañ kenn dootu la jóg. comprendre da nga dul dégg lañ lay wax sa gànnaaw waaye bu ñu ko xool dootoo joxe dépense. mais loolu moo jiitu ak ak yore ñoo yem ndax koo fi yore fukki dërëm boo ko dépensé danaan téeméer lañ ko joxoon pour man mais da koy nangu parce que loolu la jamono ndax ki bëgg remplacer la fa nga

am nañ ay ordres à l' hôpital donc bëri na loo xam ne bu ko nit di wax ci biti boo dee ko jàng sax war nga ne waru mën a nekk ndax fii bu fi toogee di wote dara préfet fii lay toog payeur toog fii BMS day ñëw conseil municipal yu toog waaye am na loo xam ne nii bu ñu ko defee boo sikkee conseillers yi wala nga sikki c'est le contrôleur de l'État. c'est le représentant de l'État. L'ordre, c'est def approuvé l'État le budget c'est un document prévisionnel en recettes et en dépenses équilibré qui qu'on doit soumettre à l'autorité administrative pour une approbation vous aspect

de la section locale du Koulou seen collaborateur di nuyu aussi invité yëpp yi nga xam ne si ñu ngi participé ci atelier bi di gërëm ñoo nag suñu ma imam ko di am mbégte ci ñëw e di participé ci activité bi nga xam ne si Koulou Sidi moo koy def Koulou Sidi nag doon am collaboration ak municipalité de Kébémer collaboration nga xamni ci si loolu tey ni seen programme yëpp yi nga xamni ci dañ koy def dañ koy ànd ak ñun def nañu certification citoyenne il y a deux fois bu nga xam ne si ñu ngi leen di participer ak bépp activité bi ñuy def indi nañ ci sax seen coordinateur général def ci activité invité bi loolu dafay wane participation bu nga xamni ci collaboration bu nga xamni ci si ak ñoom am nañ ko oui, une euh, <coughs> collaboration qui est devenue institutionnelle. Quand j'ai reçu euh, la, Cour des comptes quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que sur beaucoup de choses, nous avons beaucoup avancé. Dans nos procédures, dans nos manières de faire, dans nos manières de représenter la municipalité. Je leur ai dit, ça c'est le fruit de notre collaboration avec le peuple nous avons ne de nous liggéey nous ça a toujours nous façon et pour et à chaque fois qu'ils viennent nous voir toutes les remarques qu'ils nous font nous travaillons à nous conformer à ça alors c'est pourquoi j'avais dit à beaucoup de maires que je ne suis pas frileux à l'endroit de la société civile parce qu'elle me permet de nous améliorer Deux remarques en général des remarques, ce sont des remarques sur les manières de bien faire. Alors, ça nous l'avons fait. L'autre acquis aussi est que cette fois-ci, quand nous devions faire le budget, nous nous sommes beaucoup inspirés de tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire nous avons fait un budget, euh, budget participatif en allant déjà le faire au niveau des cartes. Nous avons organisé des forums avec des cartes ce qui nous a permis de faire monter beaucoup de renseignements. Arrivé donc au niveau de l'orientation budgétaire, nous avions déjà beaucoup de renseignements qui nous sont venus de la plupart des cas. Alors donc nous avons eu un budget cette fois-ci très inclusif avec la participation de beaucoup de plus. C'est donc c'est pour vous dire que ce que nous faisons avec vous ne reste pas les morts. Les, les bonnes et l'ensemble des recommandations que vous nous faites, nous nous évertuons à essayer de les impliquer dans notre marche quotidienne parce que nous, on se dit que euh, vos recommandations, euh, votre collaboration nous permet de nous améliorer, nous permet de mieux faire. Alors c'est pourquoi donc euh, je ne pouvais pas ne pas passer ce matin, malgré tout ce qui me retient, pour magnifier, témoigner et vous rassurer que nous sommes ensemble et nous le resterons. Parce que nous avons vu que notre collaboration est bonne. Donc, euh, je ne veux pas trop continuer à parler. Je m'en arrête là pour vous dire que nous sommes ensemble et Inch'Allah, nous serons encore ensemble. Et parce que nous pensons que c'est bénéfique, c'est utile pour le pays. Puisque c'est un équilibre. Je dis, d'un côté, nous avons la société politique de notre côté, nous devons avoir la société civile. C'est pourquoi je dis que nous, devons avoir une société civile forte. Une société civile, quand elle est là, quand elle est forte, quand elle s'assume réellement en tant que société civile, sans équivoque, c'est un équilibre qui fait marcher les institutions, qui fait marcher les pays et qui peut rassurer aussi les citoyens qui se disent que si les politiques ne le font pas, je vais, me, le dire à la société civile, la société civile pour la alarmer pourra rééquilibrer. Donc, je vous encourage à garder cette posture, à la crédibiliser. Société civil au Sénégal a besoin d'avoir une posture crédibilisée. Parce que vous voyez, il y a toujours le politique qui est à l'assaut de la société civile pour l'affaiblir, pour l'avoir pour sa peau. Parce que le politique, à partir du moment donné, ne veut plus souvent qu'il y ait une voix discordante. Et la société civile ne peut jamais avoir la même voix que la voix politique. C'est rare. Euh, donc je vous encourage à travailler toujours à la crédibilisation de votre institution, au renforcement aussi de la gestion de l'équilibre entre les, les politiques et la société. Parce que je pense que votre action est bénéfique et elle est nécessaire. Je m'en arrête là, je vous remercie. J'espère que vous avez pu avoir Merci. beaucoup. Si vous voulez une seconde prière, vous êtes la bienvenue. merci pour ces vraiment. Euh, euh, parce que vous avez euh, vous avez pris un engagement et Birahim euh, Seck tout le temps il prend l'exemple de Kébémer toujours à Dakar il prend l'exemple de Kébémer il dit que le maire de Kébémer a dit que tous les projets que vous avez je suis preneur donc ça euh, c'est un engagement fort donc nous en remercions nous remercions aussi votre secrétaire municipal parce qu'il a vraiment facilité la tenue de, de, de, de cette activité et il est bien, on est là, on est à l'aise, on échange. Et il y a des éclaircissements qui ont. Qui, qui, voilà, c'est ça. Donc il y a des éclaircissements ici, il y a des gens qui n'avaient pas compris cette bien. Surtout avec le budget, on a beaucoup à faire. cas, je pense qu'avant, je voyais le bon diarrhée. Un bon diarrhée. Mais vous dites, Anna, Voilà.

les éléments d'un budget pour d'un tudd budget document à deuxième point Nous avons des prévisions. Nous Nous nañ recettes, recettes, day dépenses. dépenses day am mais dépense beeg bi dafa équilibré document bi préfet nous a autorité administrative da ko a approuvé te dañ ko durer doxal ci moins durée un an Bien. donc je ferme la parenthèse du budget Merci.

donc définition fiscalité c'est bien défini euh, juste peut-être d'être. Euh, les formulations qui mais tous les éléments de la définition L'unité, par exemple euh, la fiscalité c'est un domaine du droit qu'on permis le domaine fiscal droit un ensemble de moyens utilisés par un état ou une collectivité pour collecter ses impôts c'est un ensemble de moyens utilisés par un état ou une collectivité pour collecter ses impôts il peut être défini comme un ensemble des règles de droit relatives aux impôts hein. elle désigne aussi la participation des sujets de droit à l'organisation financière de l'État ou de la collectivité et à l'expression de sa politique économique et sociale. Donc, fiscalité, domaine de ci droit vous va fixer euh, loi loi et règlement yi nga la collectivité pour recouvrir à impôts donc fiscalité de manière euh, le rôle de la fiscalité elle permet d'alimenter les principales fonctions d'un État efficace dans la mesure où elle draine les ressources nécessaires à la prestation de services essentiels. Elle permet également à créer les conditions de la croissance économique. Donc, fiscalité, beaucoup,

foofu lay jógee loolu nag li tax ma ne droit dafa am droit spécial fiscal mooy du ñu am na ñoo xam ne dañuy ñëw spontanément li leen war ñu def am ñoo xam ne da ngay ñëw fekk leen dañu war nga ne defal li la war am ñoo xam ne da ngay xeex ak ñoom pour ñu def li leen war waaw wala nga am keneen kooku daal loolu la moo tax ma ne c'est un droit droit nag boo ko waxee mooy. ki deful dara dara du ko ci fekk ki def dara day am du ko ci fekk moo tax léegi nga dégg ñu ne nit defal nañ ko redressement fiscal redressement fiscal mooy boo xam ne dafay def ay opération di jaay di def ak jënd te la mu war a fay ci impôt fayu ci dara daa làqatu ci lu xam ne eh, du fay taxe du fay dara jékki-jékki ba impôt na ko jiix su ko impôt jàppee xel da koy defal redressement redressement mooy bu dee juróomi at la liggéey impôt bu ko neexee mu jàpp ne fukki at la

léeg-léeg nga dégg ni dañ maa defal du redressement fiscal fay ko lu bari loolu mooy redressement fiscal donc képp kuy yëngu ci activité ak foo mën si nekk da ngaa war activité ba ngay def su fekkee générateur de revenu la nga dem di def déclaration de revenu soo defee déclaration de revenu ci ngay xam ban fan lañ lay dugal ci euh, régime euh, régime fiscal bi nga war a adopté pour bu fay jotee nga xam la nga war a fay donc euh, loolu.

direct bi mooy di ngay jël xam nga ñaata la xam nga fa nga koy jëlee nga dem jël. xam nga soo xoolee nii mooy la contribution xam nga koo def oto yi jaar fii mm. oto yi jaar Québec. c' est sur les impôts directs ak sur les retours retours yi mooy état yi nga xam ne nii da koy fay ko ba pare indiwaat na ko ak sur les fonds de dotation fonds de concours wala fonds d' appui yi mel ni ay PACASEN donc ça ci loolu la reposé wu essentiellement les différents types de taxes essentielles moins comme taxis, euh, permis de stationnement location de sous droit de place impôts fonciers bâti et donc comme il dit de sur la publicité taxe sur l'électricité consommée sur l'eau consommée euh, occupation de taxe dans les marchés de produits ménagères, taxe sur les spectacles jeux et divertissements taxes sur les distributeurs de carburant donc l'essentiel de la fiscalité locale repose en ce qui concerne les communes sur les impôts et taxes que sont le foncier et la patente. Et dans une moindre mesure sur la taxe sur l'électricité sur et sur l'eau consommée. Seulement, ce qui est le plus inquiétant dans la pratique, c'est le niveau très peu performant de la mobilisation de ces ressources locales depuis un certain nombre d'années. Le rôle de la Côte d'Ivoire devient alors la sensibilisation de sa population sur l'importance de payer les taxes fiscales pour son bon fonctionnement, mais aussi par les actes concrets, participer à l'amélioration de leur niveau de vie quotidien et de leurs conditions de travail pour mieux les inciter à respecter leurs droits et obligations dans leurs respective. respective. Je pense que paragraphe que vous conclure moi la mission bi Forum Civil am ak taxawaay bi nga xam ne de la collectivité ci sensibiliser population qui ci ñu ils ont un devoir avant d'avoir des droits des droits beaucoup bokk na les obligations fiscales ce qui nous attend et je pense qu'on aura d'autres rencontres euh, sur lui passé comme ça Nous nous nous en profondeur qui viennent de donner, venons de dégager maintenant des stratégies de mobilisation des stratégies de communication et des stratégies de sensibilisation des populations pour amplifier l'État a même imposé aux collectivités d'avoir ce qu'on appelle des euh, euh, euh, commission commission comité de fiscalité locale commission fiscalité locale Commission war a mën nga commission fiscalité locale avec lay jeex am ay membres ak président yëpp fii moo danañ ko mais ba man koy wax keroog moom le bi son bureau mais ndax fiscalité li ci li ci dangereux mooy euh, su ma demoon tey impôt yi ñu yóbbante ma benn lettre redressement wala benn lettre fay taxe moo war ko indil Mansour yóbbante lettre laa wax de su ma ko indee jox ko Mansour rek Mansour daf may mer ndax day danaan kii waru koo jox lettre bu may fay yow mu koy indi am keneen ku ne ku ñu jox. important kii rek de moo dem boole ji est-ce que comprendre donc day loo xam ne dafa sensible tey bu doon def recensement kër yi ñuy loué ci Kébémer xam nga kër ku am kër di ko loué am na loo war a fay. location da ngaa war a fay état. Mm-hmm. ndax xaalis ngay encaissé mm-hmm. commerce bi mm-hmm. am na looy encaissé chaque weer ca kooka ca la nga cay encaissé am na loo xam na da nga ko war a fay. Mhm. léegi nag am na si ñoo xam ne boo doon def recensement dem tey ko nekk kër gi kër gi Moussa Ndiaye ko moom bii moo ko moom léegi moo ko moom bu la jëm gisee da lay bàyyi ak nag àlaaj